salaamaaleykum waa Pikine man la Pape Thiam Fajar euh, doomu yu Asu Thiam bokk ak ndey baayam sant di papa yi mama ñaari mama Asu yi ak Serigne Saliou di bëggee waa Pikine parce que fa laa man nag euh, promoteur de spectacle la damay yëngu si musique di yëngu si culture d'art def naa fi ay programme yu bëri avant ma voyagé ma demee Europe continuer sama sama affaire promoteur di def ay làmb organiser ay làmb organiser ay spectacle tëggal na ma artiste mel ne Pape Diouf tëggal na ma soirée bu rëy waaye tëggal na ma soirée bu rëy ay ñoom Kumba Gawlo euh, pas mal d'artistes yoo xam ne def nañ ay programme Europe ba pare tamit am na euh, artiste euh, yoo xam ne si africain lañ defal ñawal naa leen ku mel ne Miriama Keba ñawal naa ko fii am na tamit contact Europe ñawal naa tamit ministre boo xam ne ministre italien la foofu tamit en Italie di yëngu daal ci couture ak stylisme ak tamit euh, musique. am na ñaari projet yu muy indiaale bi si njëkk nag mooy projet euh, Maziland dañ bëgg créer benn Maziland si banlieue bi côté Zangba bi ma dëkk waxtaan naa ak euh, ministre ministre de la jeunesse Pam donc ba war nañu gisee pour ñu teg bind nañ projet bi loo xam ne la xale yi lañ bëgg xale yi Pikine yëpp xale banlieue yi daal ñu fay ñëw mu nekk benn genre Maziland boo xam ne day am salle de spectacle si biir. am ay jeux am lépp daal yoo xam ne pour Pikine lépp pour banlieue bi la projet boobu maa koy quoi en même temps deuxième projet bi nag projet bi gën tax Sénégal mooy dañoo créer association bu tudd Diaspora ah, dañ ci war a jàppale yi mu nekk comité supporter bu mag boo xam presque euh, presque six mois avant équipe nationale di équipe nationale leen contact ma ñëw Sénégal pour gis gars yi nga xam dañuy yëngu si sport lu mel ne ministre sport lu mel ne président euh, fédération bi ak ñi nga xam ne si sport lay yëngu léegi am nañ kontaagu euh, programme boo xam ne ñi nekk Europe ñëpp ñi ngi ñuy xaar mbat ay 10 villes yoo xam ne ñi ngi Europe ñi ngi préparé pour préparer euh, jàppale Lions yi. am nañ contact dëkk yu bari si Europe ba pare diaspora gaynde du du supporter kese parce que dañoo am ay euh, homme culturel yoo xam ne ñi ngi jon ñi ngi Italie lu mel ne Sadio Ndiaye comme Simbour la leen def moom bokk na si diaspora gaynde am nañ tamit euh, ñoom Ndaama Torino ñoom nay tëggkat lañ dañu préparé presque ay cinquante percussions yoo xam ne dañu war a ñëw pour jàppale euh, Lions yi am nañ loolu quoi am nañ tamit ñoo xam ne ay tubaab lañ dañuy solu comme comme càkkaaba Sadio leen undi lu mat ay sept cinq italien yoo xam ne dañuy solu càkkaaba pour pour euh, pour supporter lion yi mu nekkale mu amale culture parce que ñun bëgguñ ñëw la supporter ñu bëgg supporter bo xam day amaale spectacle nga xam ne day percussion yi dañuy fees simbkat yi di simb euh, ñi def càkkaaba di def mu nekk programme quoi après am nañ tamit ay 10 ba 15 villes yo xam ne am nañ fa ay contact yo xam ne ñu bëgg japp ñi ñu préparer pour jàppale Diaspora Gaindé am nañ Belgique contact ko xam day day day day représenté Diaspora Gaindé Belgique am nañ dem ku nekk Hollande kuy représenté Diaspora Gaindé Hollande am nañ ku nekk Espagne représenté diaspora gaynde bu Hollande dëkk yëpp daal yu wër Europe bi France fépp léegi dañu bëgg nag suñu demee ba kii def nekk benn say incha allah départ Milan pour dem jàppale incha allah Lions yi pour rek gars yi am ndam.